ñetti at gannaaw bi nga xam ne nii yokku nañu daan bi ñuy teg ñii di sàkku ak i siif ba tey ñiy woy di nemmeeku ci bërëbu attekaay yi ni yooyu la mbir bëri na lool. loolu mën na nekk euh, le fait nit ñi dañuy gën a am information si bu dee loolu daf leen dal mën nañ porter plainte. mën na nekk aussi. yeneen raison comme société bi plus muy avancé plus muy am des gens yu am des comportements déviants. naam jóge nañ ci délit def ko crime waaye ngir indi firnde ni dañ laa sàkku wala dañ laa siif ba tey ay jafe-jafe ngi ci. procédure criminelle la donc euh, bu affaire bi demee ba yàgg fi ñu ko war a àtte élément de preuve yi souvent problème mën na am si ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ay victimes ñëwatuñ parce que bëgguñ. la leen daloon traumatisme bi ñu si amoon ñu ñëwaat di dundaat loolu. li jigéen yu bëre réere mbir ci li ñu war a def gannaaw bi nga xam ne ni sàkku nañ leen tax na ba ñaax leen am solos lool bu weesoo daan yi nga xam ne ni war nañ koo gën a jëfee. donc dañu bëgg def liggéey bu nga xam ne réflexion lay nekk maanaam xalaat bu ñëpp di indi sa sa contribution ñu xool nan lañu ñu mën a ku nekk effort yi ngay def ñu boole leen. ñu gën a efficace ci li nga xam te ne moom la ñu mën a jàppale victime de violence sexuelle yi. waaye tamit ñi nga xam ne ni seeni i mbir jot nañ ko àttee dañ ci faral di jëlee ay jafe-jafe yu rëy ba tax na toppatoo leen gannaaw seen i àttee day doon lu am solo. kooku nag boo ko jàppalee pour mu delluwaat ci ay yitteem normalement kooku li ngay am ci moom dafay permettre non seulement nga jàppale ko moom personnellement. nga jàppale famille am ñaar nga jàppale communauté am ñett mais nga jàppale askan bi yëpp jàppale Sénégal. naam ci atum 2020 ba tey réewum Sénégal tëral na ay jumtukaay yi tax ba ñu yokk daan bi ñuy daan ñi di sàkkuwaate ak i siifaate waaye seetlu gi mooy ñu bëre léeg dañuy tiit dem ci kanamu yoon ngir mën faa kalaame ji